ak sax ba ca la nga xam ne moo xew foofee ca assemblée nationale mu di mbirum Amy Ndiaye ñii bi ma nga xam ne moom lañ dóoroon moom nag ma ngay àddu ci loolee da ca wax ne ñi nga xam ne ñoo nekkal askan wi foofee nekk député yoo xam ne ñoom la ñu nawloo nañu maytu yooyee mu di ay ndëgg sarax yoo xam ne ñoom waa bennoo ñi ngi leen koy tegal ngir rek bëgg leen a wàññi xamuñu fuñ koy jaaree ñi bëgg a ñëw indi fa ay xeex ak ay xuloo ngir rek ñi mën faa profitoo jàpp leen téye leen. loolee mën naa ñàkk ndax ñoom jamono ji Sénégalais yi ñoom lañ àndal jamono jii kat ñu ëpp ci assemblée bi bu ñoo topp député yoo xam ne ñoom amuñu kalaas ñoom amuñu leen loo xam ne mën nañ koo wax moom nag dàmboo ci ma ngay xam ne ne ñi nga xam ne daal ñoo di député yooyee ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky jamono jii dañoo bëgg a tegal ay ndëgg sërëx ñi nga xam ne ñoo di député yi opposition bi jamono jii nag war nañoo moytu te xam ne li leen dese bëreetul nañu muñ ba 2024 ñu jébbal leen réew mi ñu doxal ko sensé réew mi sensé doxalin bu ñaaw bi sensé lépp loo xam ne moo di ak yàqute jamono ji ci réew mi loolee la daam boo di xamle di wax ne daal ñoom jamono ji nañu moytu député yi nga xam ne ñoo fa nekk jamono ji di leen attaqué nañu wax rek li nga xam ne mooy dëgg ak li nga xam ne moo soxal réew mi Sénégal yépp ñoom rek la ñuy diglu jamono ji bu ñu topp député yi nga xam ne ñoom dañoo perte amatuñ leen lu wax bu ñu fa nekkee di fa dàgg seen teg ñoom dañuy mujjee ñàkk fayda dàmbuj daal euh, bu ñu ko tënkee ci ay kàddum daal dafay dénk waa opposition bi di leen wax ne moytu leen député yooyu te ngeen def fulla te bàyyi dagg sant beeg xeex beeg ndax loolu jëru ko ñooñu dañoo bëgg rek ngir tegal leen ay ndëgg sarax ngir ngeen daanu ci ñi mën leen wàññi denc leen ci kosoba ñu wax ci leneen euh, mu di ki nga xam ne euh, moo di Moustapha Diop ba nekk foofee ca Walf TV nekk ab journaliste bu ñu ràññee lool ci Sénégal moom nag yëkkati na ay kàddu di ko jëmale ci député yi nga xam ne ñoo di député yi waa Bennoo ña nga xam ne jamono ji ñoo fa nekk ku ci mel ni Koura Macky ak Amy Gniby mi nga xam ne moom lañ gën ràññee jamono jii ci coow li nga xam ne fan yi moo lëmbee Sénégal mu di Amy Ndiaye Gniby mi nga xam ne yëkkati woon na ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci euh, ki nga xam ne moo di Serigne Moustapha si ñii ne waxut ak moom ñii ne mboolem koo xam ne ab sëriñ ga kàddu gi yaaka moom loole sax la Cheikh Bara Ndiaye xamle woon moom mi nag di ab journaliste bu ñu ràññee lool ci senegal euh, moo di Moustapha Diop ba nekk foofee ca Walfadjri ma ngay xamle na daal député yooyu daal nekkuñu ay député yoo xam ne yu ñu nawloo lañ am na sax yenn ci ay ministres yu Macky Sall yoo xam ne su ñuy wax duñu leen tudd dangay gis ministre boo xam ne day wax ba wax ja jeex du leen ca tudd loole daal day wane ne ñoom ñi daal kenn joxu leen gëdd donte na sax am na yenn ci ay député yoo xam ne yu ànd ak Macky Sall lañ ñoom xam nañ li nga xam ne mooy yoon ña ngay doxal yoon di wax loo xam ne ku ko dégg xam ne lii moo nekk réalité waaye ñi nga xam ne ñoom amuñu leen lu dul ay saaga ak wax ju ñaaw ñooñee kenn nawloowu leen kenn du leen tudd ci lenn loo xam ne lu responsable la ñoom daal du ñàkk fayda rek ci la leen dégg kenn du leen dégg ci lu am fayda loole la xam xamle moom Moustapha Diop ba nekk ci wal fajri nekk ab journaliste bu ñu ràññee lool ci jamono ji ci senegal ñu wax ci leneen mu di ki nga xam ne moo di maître El Hadji mi nga xam ne moo nekk comme comédien Sénégal jamono ji moom nag daal nañ ko yóbbu vaar ginnaaw ab vidéo boo xam ne daal nañ koy montage dagg waxi Ousmane Sonko di ci indi benn musique boo xam ne Youssou Ndour moo ko wayoon su waxee ba pare ñu indi musique bi loolee la ki nga xam ne moo di maître El Hadj di wane ci plateau ba nga xam ne fa lañ ko invité woon ci TFM mu di faram fàcce mu ciy janoog Pape Ngagne génne ko foofee di wax ne usmaan Sonko moo wax ne am na almet dana taal dëkk bi te fekk na loolee Ousmane Sonko ba ma koy wax ca Coupe d'Afrique bi la ko waxoon mu di ba nga xamee ne jël nañ coupe bi mu ne Macky Sall dafa jàpp ne instant bi daal am na almet ba lu ko neex mu def jamono ji loole lañu jël ak ay wax yoo xam ne yàgg na ñu boole ko def ko ab vidéo ñu bëri nag jàpp ne kii di maître El Hadj moom day tay taylu wala sax xam ne lii montage la waaye daal dafa xamul lan lay def waaye daal moom jamono ji daal Sénégal yi ñu ngi ko yóbbu ay vaar di indi bi nga xam ne moom la Sonko doon waxee di ko taqale naan ko lii montage la ñi nga xam ne ñoo di waa kàcc-kàcc ñooñee ñi ngay wax naan ñoom duñu bàyyi kenn koo xam ne dafay tilimal deru Ousmane Sonko am na si ñenn ñoo xam ne ña ngay jënd def ay vidéo ci TikTok bi di ca wax ne fu ñu xëyee montage ñoom dinañ gontu effacé loolee ñoom ñi nga xam ne ñoo di waa kàcc kàcc ñoo ko xam xamle voilà kon mbokk yi jox leen dig daje beneen incha allah ci 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci ànd beeg 5M TV Sénégal ngeen wéy di abonné di amee vidéo yi di ko partagé jaa ngeen jëf ci topp gi ak sax rek ak namoo gi jaa ngeen jëf.